Assalamualaikum, assalamualaikum, aduna war warngal kep ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen ziar di leen ñaanal di sakku baax ngeen ñu ñaanal di am bekté ak contente anu ci and biir ñu ci seen émission di wax ne seen suñ bekté jëm seen nopp suñ banexu seen taxirlu waral suñ farlu tegtal du tay mukk du bàyyi mukk ci indil leen ko xam na xam-xam lay waxe xam-xam lay jëfé xam-xam lañ ko xamé kookoo di kan bàyyi aada topp boroom jinne yi bàyyi aada topp borom jinne yi nekk ci Soprim ci boo rombee bu ñu mbeddu assance tigo bi ci wetu kër Abdou Guité sekk ci kaw tali bi nga mel lu jëm dex gi rek ci wetu doodaan yi foofu di nga fekk bàyyi aada topp boroom jinne yi euh, ñu yàgg ko jël tettal ñëpp nangu ne am na xam-xam ndax day waxe xam-xam ba kenn du ko weddi ci xam-xam ndax li muy fësal lépp di xam-xam bàyyi aada topp lañ ko seqal yàgg nañ koy seq ak moom ba askan wi seetaan kenn du doyal ci émission bari topp yaa ngi ci foo xam ne que duñ doyal ci yow te dooy doyal ci ñoom muy LCS ak émission tegtal bi nga xam ne que góor ak jigéen mag ak ndaw yépp kenn ku ne dina ci gis njëriñam loolu nuyoo ngi lay seetaan alhamdulilah aoudu billahi min alsheytan irajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadi lawla an hadana allah والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقدوتنا إلى الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القريشي وعلى آله وصحابته وعلى تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نيك سنت يا لوباخ دي جولي سينو تبي يعني يا لو ماتي غير ما عندي ما كير ما عندي أنا لم تشينو تبي صلى الله عليه وسلم من الأزل إلى الأبد di ñaan yàlla wàcce ngërmandeem ak yërmandeem ci saxaaba yi nga xam ne ñoo uyu yonent bi ci potem ak i taabiin yi topp ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu jamono ji ba ca koy mujj juddu yàlla di tukkal adduna bi ne yàlla wàcce suñu ñëpp yërmande ak ngëneel ak xéwal di ñaan yàlla képp ko nga xam ne yaa ngi seetaan wala ngay déglu foo mantika nekk ci aalam bi yàlla may la nga dégg loo xam ne njëriñ lay doon nga jëriñoo ko azalan wa abadan insha allahu taala ne moom la ñuy tàmbali jërëjëf euh, Baye Ada Top boroom jinne yi jërëjëf mbokk yi nga xam ne que yéen a ngi seetaan seen émission tegtal balaa ñuy sori di numéro yi ni ma ko joxee lu ko gën a leer amul mais du tey da may woo di ma ko laajaat kon ngir jàppale leen ak jàppale sama bopp du ma tàyyi mukk si di leen ko gën a jox ngir ñu bay bañ a sonal sonal bu metti bindal bindalal meer bi foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit bët yi neexul ñuy wax ci saal bi ñu noppi bindal 77.

nga fekk ko fi diis ko sa soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam ne que tëlewul dara te mën na lépp wala tamit nga fekk ko ci Skype bi nga def bàyyi aada 99 lépp kole léegi nag Skype bi am na lu ci bees lu ci changé ba mu doon joxe bii mu joxe bokkul bàyyi lu waral loolu nga changé Skype bii léegi bu bees bii ni mooy bàyyi aada 99 collé lépp collé. waaw li waral boobu changement toujours rek yàlla mooy dogal lépp lépp lu am rek yàlla moo ko dogal. فعال لما يريد <coughs> موي ديف ليپ لو خامني لوكو سوبل ريك مو ديفكم ala kulli la boobu moom ko ko ajouté incha allahu taala ñun ñoo ko yoree dañ jot incha allahu taala ci kàttanu yàlla di bàyyiloo xel ñi nga xam ne ñoo jotoon yore ba euh, adresse ñoom ñoom xam ne nekkatul suñu loxo pour ñu moytu buñ leen ci woowee wala ñu moytu ñoom itam boobu moo tuddoon bàyyi 77 71. waaw boobu lañ ñu ba nga xam ne nekkatul suñu loxo képp kuñ ci woo wala képp ci ay jéego pour ñu bañ ko client yi bañ ci ay nit jéego ñi ñi nga xam ne ñoo féree wàllu woo donc ñun féréewuñu wàllu woowu suñu xam-xam bëriwul ci lool waaye ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci te yàlla boole ñu ñoom taxawloo nañ leen ci wàllu woowu pour ñu taxaw ci lépp luñ ci mën insha allahu mhm. waaye li gën a wóor même muñ ci jotaatee sax boobu képp koo xam ne que doon nga jokkoo ci bàyyi 77 71. bàyyil Skype boobu doxatul. man ngaa bàyyi bu Skype doxatul te bu doxa bu baaxaatee it duñ ko jëfandikoo waat dañ koy arrêté di continuer di jëfandikoo bi bàyyi aada 99 incha allah. boobu éliminé nañ ko carrément bokkutul toog na bàyyi aada 99 kon Skype boobu lépp collé moo baax. baada ñu ñëw ci biir euh, waxtaan bi dafa am ñoo xam ne que xaw ma danoo dëgër bopp xaw ma danoo gëmadi xaw ma danoo naqaree convaincre. ba léegi dañuy seetaan tegtal taxaw di laaj ndax sëriñ sëriñ am na daal naan boo waxee ñu naan mosuñoo gis lu sëriñ def. waaw ndax sëriñ am na wala amul loolu toujours laaj la boo nga xam ne teguwut ci xam-xam.

su fekkente ne dëgg nga gëm ah yàlla wax na ne da nga dajeeg dëgg insha allahu taala euh, innama tuaduna euh, fa sa yàlla mën a mën aa daafu nasran yàlla wax na ne maanaam képp ku nga xam ne daf la dël dara lam la dëgal da nga dajeeg loola wax na itam ne ko xam ne da ngaa weddi itam dëgg danga nga li nga xam ne moom lañ lay tëkkoo ci ku weddi dëgg ala kulli alin sëriñ am na ndax dajee nañoo sëriñ ñoom wala dajewuñu sëriñ wala gis nañ sëriñ wala gisuñu sëriñ loolu mooy laaj bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne bajilul mashaayikh fa inna tabzilu min ta'zimi hurmatillahi azza wa jalla na ngeen di màggal sëriñ jox leen jox leen jox leen horma parce que màggal leen jox leen horma dafa bokk ci nga màggal yi nga xam ne yàlla da leen a màggal jox leen horma sëriñ nit rek lay doon comme ni ab yonentu di doonee nit rek yonentu bi sallallahu alayhi wasallam sahaaba yi wax nañ ne Seydina Ali moo wax ne kullu ma jaasa an yakuna mu'jizatan li nabiyyin jaasa an yakuna karamatan li waliyin maanaam lépp lu nga xam ne mën naa nekk mu'jiza nekk ñeel yonentu ak yonentu bu mantika doon rek loola mën naa nekk teraanga ñeel waliyu waliyu mooy sëriñ mooy koo xam ne dafa fexe ba nga xam ne méngale ne ay waxtum yépp yàlla tabaraka wa taala yàlla itam méngale ko boppam ndax képp ku nga xam ne jox sa bopp yàlla rek yàlla da lay jëlal boppam yonent bi sa yonent sa nag waaye boobaa teraanga lay nekk ci su ko defee nag sëriñ kon nekk na lu am loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ci yàlla wax na a gëm yàlla na ngeen ragal yàlla gannaaw ngeen ragalee yàlla na ngeen sàkku wasila wasila mooy baab mooy bunt bi nga xam ne ci lañ mën a génnee ci alquran sëriñ mu nekk ñeenti xeeti sëriñ yoo xam ne ñoo am ci biir diine islam bu ñu waxee sëriñ toujours rek julli lay doon ku ragal yàlla lay doon ku xam lay doon ku baax lay doon toppkati yàlla lay doon itam am na si nag ñoo xam ne ñu tax ñu leen sëriñ mooy dañuy jàngale comme cheikhu taalim koo xam dafay jàngale moo xam alquran lay jàngale wala xam-xam lay jàngale wala siira histoire yu ñu baax ñi pour nit ñi am jikko yu baax yi kooku sëriñ lañ koy tuddee ak sëriñ boo xam ne cheikhu tarbiya la maanaam koo xam ne dafay jël bakkan yi di leen tarbiya di leen yar maanaam fexe ba jikko yu bon yi nga xam ne ñoo nekk ci bakkan nit ki mu fexe ba supprimer yooyu jikko fexe def si jikko yu baax pour nit ki mën a nekk nitu yàlla boo nga xam ne itteem yépp bakkanam bi dafay sawar cëram yëpp dañuy sawar ci jaamu yàlla comme ni ko bàyyi sa abdullah tagge woon Cheikh Tiyaani wax ne chaagila nafsu bi taati mawla nas shaytan fi ibadati al aada maanaam bakkanam bi dafa soxlaa woon yàlla tabaraka wa taala waaye cër yi itam dañaa sawaroon ci jaamu yàlla moom la bu séeri itam waxoon bi muy tagg yonent bi ne alifa nuska wala ibadata wala xalwata tiflan wa hakada nujaba yonent bi dafa judd rek nekk xale bu ndaw cëram yëpp miin jaamu yàlla kooku boobaa dañ koy tuddee dañ koy tuddee sëriñ mooy cheikhu tarbiya am na sëriñ boo xam ne moom la ñuy wax cheikhu tarxiya sëriñ boo xam ne gannaaw bu ñu la tarbiya baru ba rawaanatul anfas yëpp génn sa bakkan yi bon bon yëpp nga xam ne léegi taxawal nga sa ndëgg bu njëkk ci fee yàlla pour xuus ci fee yàlla yi kooku moo lay téye di la teete foo yegg muy la fii mooy fii fii lii nga koy xamee fii lii nga fi dundee fii lii nga fi dundee kooku la ñuy wax cheikhu tarxiya am na beneen sëriñ boo xam ne moom la cheikh tiyaani wax si jaarul maane mooy cheikhul asrar mooy sëriñ boo xam ne dafay ñaanal nit ki ci ay jafe-jafem dafay dindi kii itam ci ay yooyu boo ci nangoo wuyoo yow. waaw yooyu yëpp du ma si nangoo wuyoo benn te benn amu ci. parce que lu tax amul mooy benn amu si cosaan benn amu si cosaan te lépp lu amul cosaan rek man nga xam ne maanaam wérut bu xaaba bu fekkente ne am na du olof suy olof mooy xaw ma ko. benn premièrement xaw ma parce ma ne la maa man yàlla moo man. alqaadir huwa allah yi nga ne mooy 99 alqaadir ci la bokk kon kenn du xëccoo ak moom boobu sees Macky Sall kenn fa xas ba toog ba pare. donc maa man nekkul lu am yàlla rek moo man. kon maa man moom taxawul la. non yàlla rek moo man bu xaaba moom xaw ma ko beneen bi nga ne mooy ñu tariyaax. waaw tariyaax mooy lan bon li ñu mën a wax mooy cheikhu tariqa. Hmm. man di loolu laa xam mais bu fekkente ne tariyaax la xaw ma olof la xaw ma arab la. Hmm. su fekkente ne olof la loolu amu ci olof. Hmm. tariyaax moom amu ci olof. su fekkente ne arab la moo bi dañ koy yàq baat bi du noonu ni ñu ko waxee. du noonu loolu lu dem ba koy wax rek pour lu nekk rek dafay am ñu koy yàq. Euh, Cheikh Omarul Fouti radiyallahu dafa wax ci rimaahu téere boobu mu taarif nee na yàlla ci ma ci aadaam dafa bokk ci aadaam ci jikkoom bu defee denn lu baax lu taxawal leen lu baax day fexe xiirtal seytaane mu am fukk yu mel noonu yu bon yu wër benn bu yàlla bu baax booba su ko defee comme yàlla ñi nga xam ne ñoo war a bon ñoo ëpp fuuf ñi baax te ñi baax ñëpp benn mbaax mënuñ ko séddoo faw yàlla am lu mu xiirtal seytaane mu kéré ko pour yóbbu ñu bon ñi yàlla mën a jël lu ñu baax yi léegi la war a sëriñ euh, léeg-léeg àdduna wërngal këpp nangu ne jigéen bëgg na sëriñ jamono yi ay tuuma di toppi sëriñ ngi naan ay sëriñ ak kii jigéen ak yu mel noonu te nag maanaam euh, lu bokk ci soow moom génne ko ci dafa baax baax ngay këpp soow ma mais xool la ci baaxul nga ne lii baaxu ci kenn ku ne di leeral pour ñu xam pour ñi nga xam ne que ñi lin tuuma bi tegg sëriñ am fu mu mën a teggi ko loo ci wax ci lu mel noonu waaw képp ku nekk ci lu baax lu nekk di ci yëngatu su fekkente ne wér na foofu yàlla examen la seetla ndax li nga li nga nekk nii wér na wala wérut buñ tumaalee nit ki ndax li ñu ko wax dëgg euh, li ñu ko li ñu ko tumaal dëgg la dëgg mm-hmm. yàlla ci boppam rek moom moo ko xam parce que jambi limi wax duñu ci sukkandiku ka teg tuuma luñ ci wax wala kep kuy sukkandiku itam sam sam até até na fekk la wirut manam du ma ne wérut ci suñ constitution yëfu caaxaan yi waaye wérut ci yalla la bëgg wax manam ci yalla wirut ci alcorane wirut ci yonentu baax wirut ci yonent mbolam nit ñu baax ñi itam bobu até wirut ndax yalla rek moy ki xam li nga xamne mo moo mo moo nëbbu yonentu bi sallallahu alayhi wasallam do la waxoon def ne yalla neena ahkimu zawahira watrukul bawatin na ngeen até zahiri ta ngeen baye ko baatini moom yàlla moom kesse mo ngi até parce que mom kesse mo nga xam mo nga fekke léegi nak lu waral nga ne ñi tuumaal sëriñ yi di leen wax li nangam nangam ak lutax tax jigéen bëgg sëriñ ah man wax dëgg yàlla xaw jigéen dafa bëgg sëriñ xaw jigéen bëgg sëriñ man daal li ma xam mooy sëriñ nitu yàlla la bu xam ne yàllaa ko baaxal nag ah, ci yàlla ko ci yàlla nee bu fekkente ne ni dafa dogu jëm ci yoonu baa foofu mu examen la tax ba xam ndax lii ngay wax dëgg la wala du dëgg su fekkente ne dëgg la boobaa moom yàlla moo lay ràngal maqaama yi nga xam ne moo war ci sa taxawaay pour nga yegg su fekkent ne du dëgg mu évancé la loolu mu ngi ci biir alxuraan asiba naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun mais ñenn bu ñuy def benn métier ci gàttal bokk métier am ñu ca nekk di def naka su du noonu ba ba mu siiw ba léegi siiwaay googu ñu koy dàkkale ñi ñuy doxal yoon ak ñu doxalu yoon yépp hmm. foofu tamit nit ku ne lijjanti ko jot na wala. waaw li ma la wax sànq fii ñeenti maanaam ñeenti yi ñeenti sëriñ yi. ñu am ci islam lépp leneen lu dul loolu ay caaxaan la. bëri na nag am na fu ne caaxaan am na fu ne amul fu mu amut. amul Sénégal amul France amul Màkka fu ne caaxaan am na fa ñeenti yi ma la wax mooy sëriñ sëriñ dafay xam. Hmm. su la neexee sax nga taxaw ne sëriñ dafay mokkal alxuraan de. dafa war a mokkal alxuraan sax dafa war a mokkal alxuraan. taalibe sax dafa war a mokkal alxuraan hmm. a nekk sëriñ xam kooku boobaa nit ñi nga xam ne ñoo xamul ñoo lay tuddee sëriñ waaye si xaqiqa doo sëriñ parce que li ñuy séentu sëriñ mooy xam-xam nekku ci yow te ku xamut kooku mënta xam nu muy jaamoo yàlla bay man a xamal keneen nu muy jaamoo yàlla xamul moom nu muy def pour mucc bay dimbale keneen mu xam nan lay def far pour mucc te loolu ci alxuraan a xamee mooy téere bi xam ne moom la yàlla jox yonentu bi nee na man tamassaka bi najaay ko si jàpp da nga mucc parce que benn cet bi mu ngi ci loxo yàlla benn bi ñun jullit ñëpp ñoo ko bokk nee na bu ñu ko sàgganee sànku kon daal waxi yàqkat ak waxi tuuma ak yooyu kon kenn ku ne waaw kon daal kenn ku ne foo mën a dem am na ñu baax am na ñu bon bul jël lu bon la jox ci exemple ne lii lii nii la mel mm. xoolal ña baax ña ña koy teg ci yoon nan koy doxale nga xam ne lii la ña ci des nag nga teg leen na le mais gis téeméer ñu baax ak ñett ñu bon nga jël ñett ñu bon ñu mel na lépp bon loolu baaxul mm. waaw du yoon kon nit lépp looy def rek na nga ci xool sa diggante yàlla ak dëgg jërëjëf mbokk yi dan seen émission tegtal ñu ngi indi dalal ki di bay Ada Top borom jinne yi di dugg ci yu bari pour mu leer liñ ci jublu woon nag mooy comme léegi yàqkat yi dañoo bari ci dëkk bi tuuma yi bari ci dëkk bi kenn ko ne bu waxee ñu xam fi mu teg waxam ñu xam ci ko seexal kan la te xam ne tegtal du leen indil cune tegtal du leen indil koo xam ne que day wax nii muy yomb ci nen rek parce que lépp lu fi war a leer dina leer leneen li nag ñu bàyyi koog yàlla comme ni ñu koy lu mu ci man mu def ko liw dara te mën na lépp baara topp ñu ñëw ci wàllum euh, feebar yi nga xam ne que raar na trop te sonal nit yi sax jafe faj nerf sciatique nerf sciatique maam lan moo ko indi nit ak bu dalee nit ki nan lay xamee ne mii moom mi nerf sciatique moo ko dal ak ñaata fan nga dindil ko waaw nerf sciatique maanaam feebar la ba nga xam ne feebar la daa nekk du feebar parce que mooy ay sidit yoo xam ne dafay jàpp di lemu loolu feebar la daanaka itam du feebar ndax sidit yeeg nit ki ñoo nekk mënuñoo tàqal sabab bi lan la lu ko indil nit ki waaw li nga xam ne moo koy indil nit ki di toog lu bari te doo wéeru bokk di toog ci loo xam ne lu wow la ba nga xam ne sa sidit yi day tegu ci lu wow hmm. yooyu bokk na ci li nga xam ne daf koy indil nit ki hmm. moom nag bu dalee nit ki insha allahu taala bu ñëwee dinañ ko bu ko bu ko jàpp ni muy xamee ne dal na ko mooy tànk yi day commencé di métti lemuwaay way lemu yi nga xam ne ñoo nekk si jëmmam ji loxo yi am na fuy lemu tànk yi am na fuy lemu jëmm ji ndigg yi fuy lemu yëpp am na foofu nga xam ne si dañ faa daje yëpp day commencé di métti lu bare bare buy dox tuuti rek day gaaw sonn ci yooyu du du coono boo xam ne ci bakkanam la koy yëgee waaye coono boo xam ne si cër yooyu la koy yëgee cër yi la koy yëgee mais ki mu xas euh, dal ba pare te fajagu ko la lan mooy yokk loraange bi maanaam lan loo xam ci côté lekk ak ak doxalin lu mu war a moytu waaw moom bu xasee ba dal moom day gën di yokku rek parce que nit mënoo ñàkk toog te la xasee ba dal nooy gën di toogee day gën di métti mënoo ñàkk itam di dox waaye moom oto loo mënti nga am force da ngay am ay yoo xam ne moom da ngay dox te booy dox itam day gën di métti rek moom bu xasee ba daani ko tàggu rek mooy li koy tax ba du màgg mais amul ay xeetu lekk ak yooyu yu a indil ay problème du feebaru biir wala yu demee noonu moom feebaru sidit la neer ci at moom ah, moom 33 jours rek 33 jours ci lañ ñett mooy 33 pour muy leer ñu ñëwaat ci euh, ulcère mooy lan ak lu ko indil nit ki Euh, feebar la boo xam ne ci biir la ci jëmmi nit ki lay nekk ci biiram mu nekk euh, feebar boo xam ne bu dalee nit ki day bëril waxtu wu nekk loo xamee ne cëram yi dënnam bi day bëril ay métti yoo xam ne moo ci nekk jàpp mbàq gi moom nit ki si maanaam mu koy yëg am jafe-jafe si wàllu lekkam yenn xeetu lekk yu bëree bëri muy am jafe-jafe lekk su ko lekkee muy yëngutu muy métti muy am ay géex yoo xam ne yu xaw a doy waale doon ba daanaka bu ko lekkee génnee ko sax lay bëgg xam ne maanaam noonu la a reesee daal <coughs> moom itam feebar la boo xam ne day toppaat day dañ koy day wàllaate day wàllaate ah, waaw day wàllaate ci wàlla bi nan lay demee ci nit ki naan ci pot bi nga naanaat ci pot bi wala ñaar ñu sëy lay doon wala na déedéet bokkul ci yi nga xamee ne maanaam ci wàllu sëy lay ñëwee nag moom maanaam ci wàllu lekk wala ci wàllu naan wala suñu demee noonu ci lay gën di ëpp lu muy dara nit waaye ko faj ba mu tàggoo moom incha allah jërëjëf euh, Baye Ada Top ñu ñëwaat ci beneen boo xam nag ba léegi sonal na askan wi mooy hépatite B hépatite B moom bu ñu koy wax dafa am A ak C wala nu mu demee noonu waaw am na A B am na am na yu bëri. waaw tubaab yi ñoo xewal tubaab yi ñoo xewal ay B ak C yu kenn xamut yooyu yëpp tubaab yee ko xewal rek waaye ñun Sénégalais Afrique ñun xamuñu ay parce que du ñu làkk tubaab. te ay B yi ay yëfu tubaab la. feebar la rek comme feebar yi hmm. mooy numéro 1 léegi nag ñoom seen système yi bopp la faw ñu créé ne fii mooy A parce que ma waroon nekk bu tolloo fii mu si niveau 2 parce que ma waroon nekk ñu def ko B ma waroon nekk waaye moom itam feebar la rek boo xam ne nag day wàllaate parce que lu gën a bëri maanaam bu fekkente ni def ko am bu amee njaboot rek day wàllaate daal si wàllu sëy lay wàllaate moom feebar waaw day wàllaate ko am nan ngay xamee ne moom moom la am day jàpp sa wàllu wet yi sa faar yi wàcc si wet yi jàpp ndigal yi day jàpp lu gën a bëri di jam léeg-léeg boo lekkee sax ba tëddee yenn tëdd xeet tëddi wet yi nga yëg ci biir mel ni dafa am luy jàpp ci biir di jam jam lu métti métti te boobaa foo nga toog lu yàgg rek mooy tax mu doog a dal Euh, loolu bokk na ci si ñi nga xam ne daf koy faral def nit ki ak léegi-léegi itam maanaam muy jàpp sa biir bi di tourner ci biir moom hépatite B dafay def loolu ci biir nit ki ci wàllu glaucome bët waaw moo ko waxee lu lépp loolaa laale bët bët moom moom foo ci toog waaw foofu bu fekkente ne am nañu waxtaan foofu lañ ci toog wàllu glaucome mooy yoo xam ne ni feebar la rek feebar moom itam comme feebar yëpp bët yu naqari boo xam ne day monter moo ëpp lu mu koy def léegi-léegi nag nit dana am lu ñuy wax bimping ute naa golokum bimping mooy koo xam ne day faral di sëgg ci feuille yu weex lu gën a bëri dem ba ah? ak ordinateur waaw ak lumière yi nga xam ne bët day commencé fuulu di commencé am ay tupp kii yu weex am point bu weex bu nekk ci biir maanaam bu ko defee gisam commencé naqari loolu bokkut ak golokum loolu bimping lañ koy olof yi di wax golokum lu gën a bëri lu koy joxe rek mooy tension boo xam ne dafay faral di monter ba nga xam ne léegi day faral di daane borom bu dalé ni ki nag day nakadil gisam manam gisam du neex dal leg leg man na xol lu yag door di commencer gis wala gisam ci côté walu wedi du gaaw dana dem ba bu yagé wedi yi dootu gisati ci digg yi rek lay gisé manam lepp lu mu jeexut lu ne du ko gis lepp lu mu xoolee wet du ko gis gëlu ko mom moom lay manifesto ci nit ki bo am xam moko dal mais gumba mom mënoo ko faj moom gumba moy ko xamné gisul waaw beuri dafa muru carrément mbaru beuri ci mo muru waaw xam nga fer bo xamné duñ koy fay du wër amut mhm. bu fekkente ne feebar la. dañ ko koy faj. bu fekkente ne dafa ñëw judduwaale loolu yàlla moo ko bindee bët mbaru bët bi si boppam. mel noonu. nga xam ne yàlla moo ko bindee. loolu yàlla moo ko lu yàlla def mënoo ci dara mais ku kuraan gis ba gisatul moom man nga ci dara. feebar la bu ñëwee dañuy xam lan moo ko fa lan moo ko dara rek ñu faj ko incha allahu taala. lii ngay wax ni lu jafe la de. bu ñëwee dañuy xam lan moo ko dal. waaw ñi faj ko mu wér incha allah. léegi noo ko xamee da nga koy laaj muy tontu wala yaa xool sa jumtukaay. waaw dañuy danañ ko laaj mu tontu danañ xool itam suñuy yoo xam ne duñ duun moom la ñuy laaj ñun dañuy su ko defee ñun ñi xam lu ko daal ñu yow door fajee. Mm-hmm. dina jël temps wala du jël temps. ah mën naa jël temps sans si buñ xamee nan la demee ba jàpp ko parce que mën naa nekk loo xam ne feebaru zahir la nii rek comme. Mm-hmm. tension moo ko daal wala gulukum dem ba jàpp bët yi gisatul. Mm-hmm. mën naa nekk itam loo xam ne rab moo moo dëkk si bët yi xam nga ñuul ñuul bi rab moom dinañ fa ñëw sax à part weex weex bi mu ngi am normal rab bi toog si bët yi bu xoolee du gis mm-hmm. day def loolu boobaa dañuy xam lan moo ko daal rek su ko defee ñu doon di koy wax ne ko moo xam du ko a wóor ndax xamaguñ ban moo ko bu fekkente ne rab moo ko sabab insha allahu taala mën na kaa bañ a yegg mm-hmm. su fekkente ne leen moo moo ko sabab itam danañ ko wax ne ko daal nangam ci ay fan insha allahu taala nga tàggoo moom si kat mi mm-hmm. gémmiñ xeeñ na waaw ba kenn xamul lan la waaw loolu moo fa indi. lu koy indi loolu lu koy indi mooy boo xam ne dafa yàgg ci biir hémorroïde boo xam yàgg ci biir nit ki moo koy sax na am na maanaam luy war a jiital ci laaj. def naa doo di kon ñu duggaale ci hémorroïde boole ko gémmiñ. hémorroïde mooy feebar bi nga xam ne maanaam moo koy waral hémorroïde nag dafa am interne. Hmm. am externe maanaam boo xam ne dafa nëbbu ci biir ak boo xam ne dafa nekk ci biir dafay commencé génn hémorroïde toujours buy commencé daal nit ki wala li ñu yekkee li koy waral mu li waral muy daaneel ki mooy di toog lu bari te doo jël matukaay yi nga xam ne moom nga war a jël yu lay dimbali ci wàllu toog bi yéen matukaay comme matukaay toog bi waaw bu fekkente ne ci wàllu yoo xam ne am na ñu koy jël pour yoo xam ne day dimbali si wàllu matukaay bu fekkente ne koo xam ne dafay liggéeyal di mën a am jot bi muy def di di yëngatu boo toogee sa cër yëpp dafay wàcc waaw lépp lu nekk ci kaw yëpp dafay wàcc normalement bu fekkente ne toog nga diggante bu yàgg soo amee jot bi war ngaa mën a jóg yëngatu ba sa yaram bi tànga maanaam ba cër yëpp benn bu ci nekk rulle li nga daw li mu war a daw li mu war a liggéey yëpp mu liggéey ko kon xanaa kuy dox lu bari moom hémorroïde du la sonal de bañ a kaa mën a bañ a parce que hémorroïde mën na laa dal nga door di commencé dox ah, boobaa itam du tere da lay su fekkente ne da dox lu bari te boo yeggee la ngay toog moo ëpp foofu la ngay dox boobaa itam mën na laa dal moom loolu mooy sababa maanaam di toog lu bëri ak di lekk yenn xeetu lekk yu diis yi ba pare lekk ko rek tëdd doo ci doo dox ba ba mu rees doo si teg leneen da lekk rek tëdd yooyu itam bokk na ci na ci yi nga xam ne bu fekkente ne fanaanee na noonu bu yàggee dana commencé di sababa nit ki muy commencé seere hémorroïde bi di commencé ñëw tàmbaliment bi nag buy commencé dal nit ki dafay def benn picc ci biir bi comme picc boo xam ne comme genre eh, dëtt lay am léegi nag nu muy gën di màggee lay borom di commencé di gën di moo tax du daf koy dal rek gagné ko 100 pour cent bu ko dalee premièrement day commencé di bi di di am gaz lu bëree bëri du son ngelaw léeg-léeg mu yuuxu bu xiifee biir bi métti bu lekkee du gaaw a rees di am géex lu bëree bëri boobaa hémorroïde interne moo koy dal hémorroïde boobu nag mooy dem ba nga xam ne li waa ji lekk maanaam bu fekkente ne da ngaa lekk toog lu man ñaari fan ñetti fan li nga lekk génnut day am foo xam ne fale matière yi di placé wu ci biir bi su ko defee matière yooyu na nga xam dañaa placé wu si biir bi waroon a génn te ndax léegi war nañaa génn ñooy commencé di delloowaat xet ci gi xet googu di ñëw loolu mooy moo fees leen mooy gémmiñ guy xet loolu moo waral kum dal boo jëlee ay boros ak lu nekk nga jël def lu nekk it ay beeru ak ay boros yëpp mënu ci dara parce que nekkul ci gémmiñ gi te loolu ci gémmiñ la a yem hmm. loolu mu ngi bàyyeekoo xet googu mu ngi bàyyeekoo hmm. nga faj feebar bi ko defee ci ngay mën a tàggoo hmm. tamit ñoom parfois ñu jàppe ko liggéey est-ce que liggéey da ciy am waaw liggéey de danay def nit ki feebar comme bu fekkente ne dañ la dañ laa liggéey liggéey dañaa liggéey ci liggéey yoo xam ne dañ koy yebal rab boo xam ne dafay ñëw feebar ku jàpp ko jàpp jooy bi boobaa mm. mën na kaa indil feebar mm. mën naa toog léeg-léeg di am xet yoo xam ne moom moo koy xeñ waaye du si gém ñoom lay bàyyi ko du xam sax moom mm. fan lay bàyyi ko waaye daal fu toog dama sentir ne am na xet gu koy dugg waaye du xam fan la bàyyi ko loolu boobaa liggéey dina koy def boba fekk na jinn seytaane yi nga xamne ñoy ñooy liggéey liggéeyu ñom lañuy yebal ci yow ñoo lay dugg ñoo commencé def lool ci ku mel non ñaata fan nga ko appal moom nga lijeenti ko walu walu liggéey liggéey kum jàpp fukki fana ben la ko moy da nga ko jox muy lois lu mi sango wala wala amna ci yumi sango amna ci yo xam bagage jinn lay doon yo xam buñ ko ko joxe eh, yumi jëfëndiko la dana ci am yumi suuro dina ci am yumi nan muy mhm. inshallah taala ci fukki fana ben ci carte yalla mu tago moom mhm. legi ñewul ci tension moy lan waaw hémorroïde bi ñuy yoon ci hémorroïde mu dess hémorroïde externe bi waaw ah nettali wax naa la imurit bi nga xam ne moo nekk ci biir ñu manifesto maanaam di def biir di seer di songeew di yuuxu lu gën a bëri te ci suufam maanaam bu demee toilette day sentir na day génnee deret wala day génnee ndox wala dëtt wala day am jafe-jafe dafay sonn loolu daal pour mu dem toilette mm. bu demee ba yàgg itam mën naa génne picc picc boobu muy génnee dafay des carrément bu lay tàmbalee daal dafay dafay génn bu ci kanamee mu dugaat mais xam ne màgg na nag dafay des carrément dootu duggati léeg-léeg mu néewi mu nekk loo xam ne dafay màgg bu tojee day day am deret fekk tojul nag bu xasee ba nee fekk tojul dalay sonal boobu la wax hémorroïde externe bi boobu moom mënta ànd ak kattan ci jëmmi nit képp comme daal rek moom seeboo nga xam ne wàllu kattan jabar moom bu ko takki ci ah kon ba mu togg ak moom foofu jërul muy takk soxna defet lay jël daal gàcce nga ci jël léegi bu dee jigéen la nag ban loraange lay am loraange yi ko mën a indil bëri na mën na kaa indil kanam goo xam ne dafay faral di xeeñ mën naa yàq ëmbam itam mën na kaa indil jafe-jafe buy am doom ba foo ñu opéré ko te Sénégal dafa mel ne dañuy xaw a xeeb hémorroïde. te day rayaate. Hmm? hémorroïde day rayaate. waaw ci feebar yi rayaate la bokk parce que feebar boo xam ne dafay jàpp sa biir bi di koy ëf. Hmm. waxtu wu nekk sa biir bi di gën di yokku. Oh, te day teree lekk doo am appétit pour lekk maanaam mën ngaa xëy lekk benn daggitu mburu bu ndaw ba re ba reer doo lekkaat doo xiifaat mën ngaa lekk toog semaine doo dem toilette am na si ñoo xam ne sax léegi ay dof la ñu koy mburu an toog naa lu mat semaine demul waaye waaw xam nga loolu yëfu dof la <laughs> bu lekk bu ndékk jotee nga ndékki añ noonu reer noonu naan ndox boole ci yooyu yëpp nekk ci biir bi te biir bi amul dencukaay mbalit hmm. loolu yëpp nekk ci biir lu mat ñetti fan génnut xam nga loolu mën na laa rey waaw loolu moom risque dëgg bu sax say garab ba xam dangaa yor garab yu wóor yoo xam ne que jàpp nga ne lii moom hémorroïde yabu garab bi ma ci hémorroïde képp ku ko jox nga jël ko premier traitement une semaine laa la may boo ñëwee incha allah bu la yàlla gën dimbay da nga caalit moom boo koy jël automatiquement doo doo ko jël benn bés mukk te gisoo ci li ñu la ci wax mosta am te ñu ngi koy jëflante li ñu ko fajal ci ay nit fii bëri na trop ah kon nag kon nag ni mu waxee ni ngeen ko déggee wóolu na boppam wóolu na li mu yor kon képp ko émorit sonal bàyyi aada topp boroom jinne yi mi ngi fii ci Soprim ci wetu agence Tigo bi boo ko rombee ñu wetu kër Abdou Guité Seck boo laajtee foofu rek jibal mel lu jëm dex ga rek di nga gis euh, kër bàyyi aada topp maa ngi lay joxaat numéro yi léegi ci kanam baada asma nag asma am na ñu dem ba tëkk ko ne du wér sax waaw képp kuy tëkk feebar ne du wér daa xamul rek xam nga xam-xamu nit bu ne dafa am fu mu yem parce que nit jëmmum ji dafa am lu dafa am fu mu yem par exemple yàlla mën na laa may nga xam lu nekk ci asamaan si mais sa jëmm ji dafa am fu muy yem man te yegg si asamaan si waxtu wa ngay expliqué ni la xew asamaan sa jëmm ji demu fa ma ngi toog fii li nekk ci biti xam nga ñun gisuñ ko parce que suñu jëmm ji fii rek la mën a yem nit ki léppam lu ne rek dafa am limite dundam dafa am limite mani nam dafa am limit xam-xam itam xam-xamam dafa am fu mu yem yàlla may la nit ki mu mokk alquran foofu rek la yem yàlla may la nit mu mokk alquran gannaaw ko mu xam ko man kaa jàngale ko foofu la yem yàlla may nit ki mu xam ko gannaaw ko mu xam yeneen nit téere foofu la yem yàlla may nit mu xam lu ëpp loolu yàlla may nit yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu xam lépp lu nekk ci àdduna bi ak lépp lu nekk ci àllaxira mais yonent bi foofu rek la yem taxul mu nekk yàlla donc kenn ku nekk rek ci nit ñi dafa am fu la yàlla yemale ci sag may bu fekkee da ngaa dem man uh-huh. ah, fii laa yem mais lii mënul nekk wax ku dof la wala waxi ku xamut asma ah, feebar la comme feebar yi dañ koy faj ba mu insha allahu taala ci yi ah. faj ci 33 jours ci la bokk nga ko ñaata nit ah bu ma toogoon di wax lu muy faj mbaa dina bëri kanaa damay génne sama sama lix yi may bind di la wan ne kii ak kii ak kii dana bëri de ah dina dana bëri li ñu ci faj sa bëri na trop de a waxtaan mooy ku fi ñëw moom incha allah taala mhm. Mhm. lan mooy sabab bi moom it waaw sabab bi wax na bokk na ci li nga xam ne moo koy joxe suukar di jëfandikoo suukar lu bëri mhm. te doo koy te duy génn xam nga lépp lu dugg daa war a génn génn bi nan la war a demee te duy génn waaw xam nga am na yoo xam ne bu ko nit ki jëfandikoo daa war a génn mooy da war a génn dem toilette am na yoo xam ne dafa war a a nekk am na yoo xam ne dafa war a a génn ci nit ki nekk rek a génn bu fekkente ne nag nit ki day jëfandikoo suukar lu bari te duy faral parce que suukar lu muy génne mooy ñàq bu demee ba yàgg mën na kaa commencé indil taasu jabet comme kuy ñàq ñu jàpp amul jabet dañ koy walaat déet am na ñoo xam ne a leen tax ñuy ñàq sax jabet day tax loo def rek sonn di waaw jafe day tax rek boo toogee fii yëngatu yenn yëngatu yu yàgg sax waaw su ko defee moom itam feebar la boo xam ne day wàllaate ci wàllu sëy am na xale yu ndaw yu xam dañ koy judduwaale parce que day wàllaate waaye moom itam ci feebar yi ñuy faj ba mu wér la insha allahu taala li ma li docteur yi wax nag duñ ko faj ba mu man sama gëm-gëm loolu bokku ci parce que man alxuraan bii gëm te alxuraan waxul loolu déedéet yàlla dafa wax ci alxuraan maa faratna fil kitaabi shay summa ila rabbihim yuxsharun amul lenn loo xam ne lu nit ñi war a soxla la wala lu mbindeef war a soxla la daw jëm ci loola te man yàlla ma ne ko indi indiwuma ko ci biir alquran yàlla nee na amut yonentu bi itam ci biir alquran yàlla wax ne ko ne ko waxal ne qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa waxal ne alquran jii dafay gindi képp ku nga xam ne da ngaa nekk ci njëng waaye dafay faj képp ku feebar itam feebar nag amul julit amul yëfër feebar feebar la rek alquran lépp luy feebar da koy faj léegi ndoxum siti dafa siiw trop bari trop siiw lool waaw feebar la bu nga xam ne day toppaate mag ñi ni ñu ko doon tuddee mooy toppam sët yi boo demee moom la pëli di wax kuli feebar la bu nga xam ne moom itam bu bon la parce que bu ko kenn nit amee rek njabootam yëpp dañ koy am ci moom da leen topp ñoom ñëpp ci moom moo waral ñi muy mu nekk feebar dafay toppaate bu yaatu la itam ci Afrique du Sénégal rek waaye yaatu na lool ci Afrique lan moo waral muy sonal ñenn nit ñi ba xam da ngay gis ne ñii ndoxu siti ci seeni loxo seeni tànk fépp feeñ na fi ak seeni weew mooy lakk sa gis ñoo xam ne day yàq seen weey yi wey day ñuul kukk dee waxtu wu nekk da ngay dem ba sax boo lambee du fa gis wee daanaka da ngay defee ne jëmm ju mooy déformé wu noonu ndoxum sit def yi day dëgër mel ni dafa am dafa am luy mel ni ku liggéey la di dagg fekk defoo dara sa loxo yi def ay tubtu fekk defoo dara doo liggéey dara da ngay toog rek yi mooy def noonu ci sa jëmm danay jàpp ni itam di feeñ ci moom ci côté tànk yi maanaam diggante baaraam yi di xar di am ay weex-weex weex weex yooyu nag su ko làmbee day am xet boo xam ne xet bu bon la xet bu naqati la daal tànk yi itam suuf tànk yi tinq yi di tàng lu baree bari waaw suuf tinq mooy tinq yi tànk bi di tàng lu baree bari waaw su ko defee diggante tëstal yi itam di dagg am na ñoo xam ne seen der dafa oyof bu waxtu sedd ñëwee la leen siti gën a sonal am na ñoo xam ne seen der dafa xaw a diis waxtu tàngoor ñëwee la leen siti gën a sonal danay def itam maanaam di jàpp sa ndigg sa diggante ñaari mbagg sa yàqu digg naaw di métti lu bare bari foo toog fu nekk dem da ngay tëdd sax léeg-léeg muy métti loolu ndoxam si dana koy def danay def itam maanaam day rusal sa karaw gi lu bare bari maanaam doo des karaw léeg-léeg itam am na su ñoo xam ne day feeñ si ñoom di def ay xam ay heure yoo xam ne day nekk sa jëmm ji fu nekk rek léeg-léeg mu ñëw mu mu feeñ ci sa suuf sa côté lu puy di xesan lu bare bari di am ay léget te ay ay liggéey yoo xam ne dafay nekk te amul sax benn dagg-dagg yooyu yëpp euh, ndoxum siit daf koy def nit ki bu boo feebar boo la boo xam ne daal bu bon la moom itam day faral di jàpp tànk nit ki nag lu gën a bëri maanaam tànk yi di métti ban loraange la mën a jural euh, góor ak ban loraange la mën waaw moom bu jotee bu jotee ku góor bu yàggee ci moom da koy tëleloo da koy néewloo kàttan bu baax a baax ci wàllu sëy ba nga xam ne awraam dana dana dana dana yombax loolu daal dootu dëgërati loolu dana koy indil bu fekkente ne ku jigéen la itam dana koy indil muy yomba tuur ëmb maanaam ëmbam du yàgg daal boo ëmbee balaa ñaari weer ñetti weer rek ëmb bi day daal yàquwaat mm-hmm. moom ndoxum si góor bon na mm-hmm. feebar la boo xam ne bu dalee nit ki yaram bi day def ay picc tàmbalimaay mën naa doon benn picc rek waaye picc boobu bu xësanee bu day génnee beneen ndox ndox boobu feneen fu laal day defaat beneen picc mën naa dem ba def picc yu bare bëri day mel ni comme koso koso yoo nga xam ne mooy faral dal yenn gone yi léeg-léeg bu ko defee day nekk euh, yu métti métti yoo xam ne nu muy gën di yàggee rek day gën di bon bu demee ba wér day def liggéey waxtu bu sedd bi ñëwee rek mu yekkatiku commencé waat nekkaat feebar bu bees mhm. wante moom itam ci feebar yi ñuy faj incha allahu taala ba mu wér ci la bokk ci 33 jours 33 jours jërëjëf euh, Baye Ada Top borom jinne yi nekk ci Soprim mhm. Baye Ada nag dañuy dugaat ci beneen feebar boo xam ne dafay sawar ci wax ci li tax muy sawar ci wax ci yërmandem moo ci bari ndax jàmbat bi dafa gis ne bari na te am na ci yërmande te bëggul maanaam muy bari ci askan wi te gis na ne bari na ci askan wi pare moo tax mu ci taxaw temm ngir fajal leen ko muy feebaru góor wàllum néew doole tële ku mënoon mënatul ku mënul lu bari ku mënul dara ak yooyu yëpp bàyyi da topp nga ne wàllum tële foo ci noo ci def daal waaw wàllum tële moom toujours da ngeen faral nga ne da nga sawar nag pour wax ji ngir jàppale ci jàmm waaw loolu yëpp maanaam xam ko rek ak man ko it moo koy waral wa tële toujours naa koy faral leer dafa am ñeenti ñeenti xeetu tële yoo xam ne maanaam ñoo am tële bu nga xam ne daana dal nit ki ba nga xam ne buy jotee jigéen day gaaw a daanu lu gën a bëri boobu tële la ak tële boo xam ne maanaam borom awraam dudul dëgër ak tële boo xam ne maanaam borom darul am yéeg-yéeg ci jigéen maanaam du am yéeg-yéeg si jigéen même bu jigéen taxawoon sax mel na nga xam ne noonu la ko yaayam juree woon si ñàkk sol yére du tax mu yéeg boppam lolu boobaa itam tëli la ak tëli ba nga xamne manam borom awram dafa delu ba nga xamne lam daan yéeg ba man mënatu ko yéegatu ko ñeenti xeet tëli yooyu si xam kana ak balen juromel moy ko xamne ne daf kaa judduwaale ku judduwaale moom da nga ko libéré mom wala bu ñi ñu libéré ko bu ñewé jini libéré ko def ah dang koy fajj man pour man dang koy libéré ne mëno ci dara jini koy libéré fajj ko wër inshallah taala ñaata fa 11 jours xana ben hmm ah bo mom walu xam ko bu Kok mas ngaa gis man loolu dama koy dégg mais mosuma dégg. faj nañ ko nañ ci ay magam gis faj nañ ci ay nit ñoo xam ne dañaa judduwaale tële. Hmm. dafa dem ba sa am ñuy wax ñu naan a jongal xale yi quoi ndax na leen indi dëgg la wala. ah loolu amu ci alquran. ay wax la rek waaw ah, loolu amu ci lu ñu war ya? rek yàlla digle na ko bi jàngale na ko. dafa am ñu yi di leen jongal hmm. na indi la ci indi tële la koy indi lu toujours feebar la buy doon boo xam ne dafay nekk ci biir jëmmi nit ki yi ma limal fii yëpp wax la ko bu ci nekk dafay am lu ko waral même ki nga xam ne def ko judduwaale dafay am nu mu tëddee woon sa biir yaayam mooy waral mu judduwaale ko. Hmm. léegi da ngeen góor buy fo conséquence bi lii la maanaam mën na tële ji jigéen buy fo risque yi lan la moom. jigéen boo xam ne day fay boobu dana dem ba dootu yëgati bànneex si góor. ah ñoom ñaar kon ñoo bokk àtte. góor a gën a bonaate parce que bu fekkente ne góor gi dafay foye boppam ci lu gën a bëree bëri dana dem ba bu amee soxna du man ci moom dara te sa soxna boo ko amee mënaloo ko dara jigéen ñi mën a ñëw muñ ci wàllu bànneex lu bëri boobaa dafay génn dem njaaloo ju dem mooy yàlla boobaa yàlla mën naa dogal euh, bàkkaar yem cay fàggu doo ci mucc buñ ko réglé te yàlla lépp dana ko réglé inna rabbaka la sariul hisab yàlla dafay réglé lépp waaw ñeenti xeetu néew kattan yu ñu benn bu ci nekk rek bu amee dafa am lu koy waral ndoxum siti si bokk na si nga xam ne day waral néew kattan ci ne sa awra du dëgër hémorroïde bokk na ci yi nga xam ne day waral nit ki buy sëy day gaaw daanu day waral gën a bëri maanaam day yëg na awraam day dellu day ndaw day maanaam am yëg-yëg wala dana am yëg ci sëy nii waayante awraam day rees balaa mën a jotee jigéen awra bi day rees te bu daanu du gaaw a jugaat yooyu hémorroïde daf koy def ndoxum siti daf koy na xam ne mooy itam dafay waral néew kattan mais yow daal néew kattan moom kum dal ñaata fan nga ko appal. néew kattan kum dal incha allahu taala 33 jours ma faj la ba nga xam ne jigéen boo joteteeg incha allahu taala du am lenn lu muy sikki si yow si wàllu kattan ci wàllu ne 70 160 ans 50 ans bëri na ñu ci faj. ñoo xam ñu nga xam mag ñi tamit bu ñu tollee foofu dañu soxla euh, yërmande ba du tàng tamit privé yooyu. Euh, pour wàllu lu ñu koy joxee. waaw waaw waaw xam nga lépp lu képp ku nga xam ne da ngaa toog pour dimbale jaamu yàlla yi rek da ngay dimbale jaamu yàlla yi rek ci noo leen mën a dimbale kenn ku nekk ak ni nga ko mën a dimbalee rek noonu koy dimbale ni ngay fexe daal ba ñoom dinañ ci gaañu te yow doo ci gaañu fi xam ne fii lii moo la fi indiwoon ba ñëwee am nga ko nii nga ko amee képp ku ñëw incha allah taala dañ la ci dimbale suñ kem kàttan lépp lu yàlla dogal gannaaw loola nag ñun dañuy nangu lu yàlla dogal kon ñi ñëpp ñiy seetaan te soxla jamono ji numéro Baye Ada Top numéro yi ma lay jox nag ci nga koy jotee

wala nga def skype bay Ada 99 ko kole by Ada top borom jinne yi nek ci supreme nga jubal rek man lu jëm dex gi lu tollok ben 200 mètres rek di nga gis kër gi dend ak dodan bi euh, nga fekk ko fi dis so soxla lu mu ci man mu def ko leneen li ñu bay ak yalla mi nga xamne ko dara te man na lepp te jariñ jam ñi rek lay def bay Ada top, ñëw ci bo xam tamit soxal na lu trop pour nga wax ci ndax da nga ne dafa bari legi ci askan bi muy walum rap man tamit damay japp ko ne rab yab na nit ñi wala sëriñ si yab na rab ndax rab daal li ñu tudd bari na la te ba léegi am na ñuy gëm ñoo xam ne gëmuñu ne nag rab a ngi dëkk dama yaakaar ne yàlla moo ko a bu fekkente ne yab la dama yaakaar ne yàlla yàlla mun du yebaate kanaa yàlla gën a ñime la ñuy wax boo demee ci biir alxuraan yàlla tudd na ko 72 fois waaw moom rab yàlla tudd na ko 72 fois ah 72 xam alxuraan yaatu boo ko a tudd benn benn buat su saar mën naa la des doo doo sar saar kanaa saar yu gàtt gàttan yi de bu loolu doo dugg saar ba mu jeex te yàlla tu dugg fa juróomi yoon de xam nga alquran dafa nekk euh, téeméeri isib juróom benn fukki isib téeméeri saar fukk ak ñeent lu fa tudd 72 fois kon beri na dem na ba yàlla jagleel ko saaru boppam mais léegi ci téere kaw beeg ci téere suuf bu ëpp comme da nga ma fii la ëpp lu mu ko tuddee kau waaw ci sufi. kaw sufi mau suuf si téere suuf bi moo fu lu ko yàlla tuddee parce que fa la ko yàlla jaglelee sax aw saar wax faw ja wax wane ne jàmmaarloo maanaam euh, euh, jiflanti yi amone ci diggante yununtu ak ay rab. bam sa rasul na surtout jinni. Hmm, surtout jinni amna jinni moy rab. est ce que du dem commencer fajj kebe mi ngi ko doon wax léegi de léegi mo am xam-xam xam-xam ba ngi dugg ci de. xam nga jinni moy rab yalla jagle nako fu awsar bo saar. yalla ah. jangana yàlla surtout saba surtout saba yalla nettali na histoire yonantu yalla sulayman ak jinni bo boo yalla yàlla na fa suuratul aqaf suuratul aqaf yalla jàngee na fa histoire yonantu yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak jinni yi na fa itak histoire yonantu yalla musa alayhi salam ak jinni donc kon ci bir saaru suuf bi mo upp fu lu ko jàngale surtout Mariama itam jàngale nako fa ci diggante yonent yi mu fa tudd ak seen diggante setan yi dañ daan ñoom am rabbi dañ ñu ñoom kon ci téré suuf bi mo upp fuuf lu ko fa yalla tuddu waaw kon téré suuf beeg téré kaw bi téré suuf bi mooy faneer égypte yi nga xam ko mo tambalé Mariama jëm suuf beneen bi moy bu tambalé bakara jëm kaw fi comme non muy leer ngir xamé ñaari waaw rabbo gisé manam mu nekk lo xamné dafa yaatu lool dafa sonal ni manam dafa nekk lo xamné mo jitu am ak nit ak am mo jitu nit buñ ko naré indi ci bir alquran yàlla dafa wax ci alquran way xaala rabbuka malaika ni nii zaa fi ardi yàlla dafa wax malaika ne dama nam ma def ci sou sama khalifa bo xamne bu ñëwé daf ma koy daf may daf may uutu ci lépp manam yàlla dafay def tejjel li sifam ci mom su ko defé jëmm jooju moy nek représentant wu yàlla ci mboolem mbindeef fi ci melokanam melokanam la remplacer yàlla remplacer wul yàlla ci jëm remplacer wul yàlla ci tour ci melokan kep la ko remplacer kep kuy khalifa yàlla nak bi nga ñëwee ci melokan rek remplacer yàlla muhammad bi mu ñëwee tudd allahu aadama tudd allahu Musa tuddu ko ñoom ñep kon remplacer wu yalla ci tour kenn ñewut ni sama jëm ji mo jëm yalla ji kon kenn remplacer wu yalla si jëm waye si melokan lañ ko remplacer parce que si melokan lañu topé xalifa yalla yalla mi ne bimu bindé adam ba paré wax malaika yeen ne leen su ko malaika yi iblis iblis moy shaytan moy rabbu magbi, mag bi comme ni nga waxé ni julit bu mag bi mooy yonentu yàlla maamee ndax moko wax fa ana awwalul abidin mom moko wax bi nak nonu rabbu mag bi itam moy iblis iblis dafa lànk ne du ma adam aadama parce que ki bindé la mo xamné mako mag ma iblis dafa dégg di ndigal waaw benn maa ko mag nee na ñaaral ba kii du sama borom pourquoi ma koy sujootal moom mooy kan sujootalul ko bañ na bi mu bañee yàlla ne ko bañ nga sama ndigal xeeb nga sama romu jaam looloo waral dama lay dàq jële la aljana dama lay dàq jële la asamaan daf koy fidd dara la ci doon man fépp mu nii bu nit boo amoon benn élément boo xam ne daf kaa jàpp nga ñëw fii commencé jàng alxuraan wala nga commencé def ay azan ci léegi nga commencé gis mu yuux ba daw génn parce que rabbi moy mooy dund ci bir jëmum yi ta rabbi lépp lu xamé dafa jege ci yàlla tabaaraka taala safaral ay safara lay doon ci mom lan motax rab ñu naan ci bir toilette lay ëpp lu mu fay nekk ak yu mel non parce que sobe la bo démé sax ci bir yunus bi sallallahu alayhi wasallam jàngee ci hiznul muslim wax ne julit boy julit si buy dugg ci bir toilette warta jël sat sat la noonu dem duggé loxé nen war naa am ay taxsin yo xamé da nga war def allahumma inni a'udhu bika min al xubusi wal khaba'is do di dugg parce que rab boy génn itam euh déedéet loolu mooy ñaan gi rek ñaan gi loolu rek booy dugg na booy génn dañoo wax ne tànku càmmooy booy booy génn nga njëkk génnee tànku ndeyjoor loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale waaye ñaan gi moom ci ñaan ak dugg la rek booy génn da ngay wax ne sant na yàlla rab subhanak rab euh, subhanak rabbana wa bihamdika maanaam maa ngi sant yàlla ci si euh, jëmm ji jëmmam ji nga xam ne moo santu loolu rek la ñuy wax ne booy dugg ci ngay jàng ñaan gu nga xam ne kon ñoom seen dundin mooy wàllu sobe seetaane sobe lay dundee rab sobe lay dundee القران دا فا سيل با بار اي ملائكه يو خامني دا نيا اي بيدو سخر يو خامني موم لنجكاي ووتو موم لنجكاي اري ابليس بو موم لا رو نيتلي توجور نيا لا بيغا خامني باغي لا ادم لا دا فا كومانسي توب ادم ديكو فيتنال moko top ba jile ko aljana genné ko até ko souf indi indi yu ciono bi nek ni ciono nek ni yep yep bo dem ba ci san la mom bokku na ci du yalla ko dogal ga waye ci iblis mooma la ko jaare moo waral aadama wàcci bi aadama wàccee mu wàcc sa makka mu wàcc xawa wàcc ko inda ñoom ñaar ñii dox di daje ba arafat ca makkatal mukarama foofu la ñuy wax arafa mooy taxawaay yowm arafa foofu ngay dégg ñoom ñaar foofu la ñu xàmmalikooyee moo tax ñu tuddee ko foofu arafa coon yi nag commencé bi ñëwee fii fii la coon yi commencé ñëw foo xam ne amoo dara da ñëw indiwaaloo dara pour nga dund foo nga am dara pour nga nekk foo nga am dara xam nga foofu coono dana am léegi nag ci ni ngeen pour ni ngeen def ba am dara iblis itam ci nooy am foofu mu la ci mm. dana la sonal itam ci boo amee nan ngay def ba dundee ko fexe ba bokkaay yow moo tax yonent bi wax ne jullit toujours daa war a bëri lépp lu muy def rek di ci muslu parce que nee bu fekkente ne booy lekk euh, defoo musluwaay seytaane seytaane day lekk nee na même booy sëy sa jabar sax yonent bi nee na bu fekkee dafa musulaa seytaane seytaane day ànd ak yow sëy sa jabar mm. te boobaa bu juree doom mën naa nekk rab musul bi nu mu def day dem jàpp wala mu day wax onze bi lu ci nekk rek dafa am ñaan goo xam ne yonent bi sallallahu daf ko see jàngale wax na ne boo boo ci teg allahuma allahuma jënd bi cheytaan jëndin ma cheytaan wa jënd bi cheytaan maa razaqtana ne ñaangoo kuy soleer da nga war a lu ci nekk rek boo demee yonent nekk maanaam musulman non pratiquant lañ jëfewuñ liñ liñ moo waral ñu réeree loola biñu réré yoyé karangé sécurité bu mag bobu non yi itam moy shaytan yi parce que shaytan yàlla mo ci alxuraan non la inna shaytana lakum aduun fattakhidhu adwa shaytan sen non la bu ngeen xamné na ngeen ko jàpp xamné sen non la du mos a bàyyil nit ki yàlla wonu ci alxuraan fala falaa alhayatu wala yaghurannakum billaahil xaruur manam bu len fexe ba aduna bi not len bu len aduna noré rek na ngeen xamné de nga seytaane mo len wor amna lim bëgg mom mo len wor moom gharur la ko fa yàlla tuddee fala taxurannakum alhayatu wala yaghurannakum billaahil xaruur donc bu fekkente ne nit ñi ne yaa suri yàlla faw seytaan itam day bëri doole bu ñëwee dana xam ne ah kii de dara ci wàllu dina am kii neex laay jaaree ci moom loo xam ne daf koy yàqal nit moom rab mais ñim sonal loo leen dafa bëri ay xeeti rab nag am na rab boo xam ne day topp nit ki fekk sa côté wàllu famille ñoo amoon rab yu doon jëflanteeg ñoo ñu dem ba dëddu rab yooyee nga xam ne ñoom la doon jëflanteeg commencé topp ñenn ci famille bi di leen yàqal di leen gàllankoor seen mbir ni muy gàllankoor nit ki moo war a mën def sa di jàpp sa yaram bi waxtu bu nekk muy ngay sentir muy dox ci sa yaram bi di yëngutu fu mu toll fu nekk rek da yëg ne mu ngi toll fii si sa yaram bi te loolu mu ngi ci alquran alladi waswisu fi suduri naas yow kii kii mosoo ko am comme léegi-léegi ngay fajal kenn rab nga gis rab bi jël sa téléphone foto ko téye ko wala wala rab nag duy feeñ ci image boo xamee ne appareil mën na kaa gis mais yow waye du fenc image bo xamne ne appareil mën na gis léeg-léeg man amna fi element yo xamne dañ fi ñew ñëw da fay téye sen cër du mën talalu te bu ñu hôpital yi def analyse duñu gis dara ta xam nga sa tank bu daan do dem bam yag yàgg téyewu doxutul ku ne la dara neeku ci itam ah yo rabbi musu ñu jek jek mel luy dafa yow signature contrat maam nga leen di sonal bu ji ñu lay tekk daal ba nga santé ne xaw nga tiit ak yoy wala déedéet xam nga talibé luñ talibé luñ bari bari ci seigne touba du tax ñi sañ a teggi ndigalam ci ben yoon ak luñ bari bari lu ñu bëri ci yonantu bi itam kazalika luñ bëri bëri ci 94 yooyu ma lay wax ñooñu samay taalibe lañ xam nga ñooñu àdduna du neex maanaam seen bakkan du leen wor wala ñu am pouvoir buy tax ñi ñimee xotti lenn ci teg ah, sant ñuy def daal kon fi nekk boo leen santoon ñu jox ma xaalis fi nekk nii dañ ci taxaw léegi nga nekk milliardaire ah waa sëñ bi waa sëñ taxaw ci loolu la def foofu tali yëpp jëriñ jàmm ñi man bo ay jumaa ki daara yépp ñaanal sëñ Mour Diop bi ñu jàngal alxuraan mu yàgg fi te wér ak Massamba Diop ci derkile kon milliardaire na gaaw ñu ah. gàllankoor nit ki mhm. ci wàllu wérgu yaram yaram moom laa doon commencé wax bëri na rab danay um nit ci wàllu wërsëgam nit ko nga xam ne dafay nekk nit wërsëg nga jotee su wërsëgam mën naa dundal dëkk bi yépp mhm. waaye wërsëgam du si mën a jot parce que rab dee koy gàllankoor waxtu wu ne lépp lu a mu um, um ndax wala ngeen dem ay ay camion lépp loo yaakaar moom doo ci jot dina la um ci loolu lépp luy ñëw kanam mu bett la mhm. waaye boo yaakaaree dara moom dana fexe ba fànq loola doo ci jot pour ñu gën di découragé waxtu wu nekk mhm. rab danay def da nga yëg sa bopp a baax mhm. loolu nit ki rab ci boppam mi dafa sonal jigéen ñi waaw dafa sonal jigéen ñi parce que toujours dañuy jublu jigéen ñi te xam nga jigéen ñi itam dañaa zaayire lool yàlla wax na ci alquran yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa al mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna daalika adnaa an yu'rafna falaa yu'dayna waanaam yow yonent bi ak julit ñi nga xam ne dañaa gëm yëpp nañ di sol yu yëre yu jot xam nga julit nangu ñoo def loolu jigéen nangu ñoo def loolu léegi nag seytaan dafa am yenn buntu yu muy jaaree nit ki comme ñu naan faru rab coro rab maanaam rab bi topp jigéen topp jigéen bi ba pare topp ba pare toppaat beneen jigéen maanaam ci gàttal topp jigéen yu bari benn rab mën naa topp ñaari junni nit benn rab képp mën naa topp ñaari ben rab jigen te meuna top ñaari junni ni ci góor tamit meuna top ñaari junni nit waaw ah, fu lol moy mbaran mbaran bobu la doon waxe dama defe won nag comme ñu nga xamé ci ni ko nit ñi ah kon dal ñaata fan nga appal ku am rab ñu dem ci yenen gaaw waxtu wey ga rab fukki fan ben inshallah taala mo taala won wekk woon ne rab ak cat waaw liggey rab ak cat liggey ak ku liggey waaw yi ñu fukki fan ak ben inshallah taala borom tagu moom kon yeen ñi seen tegtal dégg ngeen mhm. rab cat ak ku liggey bàyyi ara top borom jinne yi nga seen nga xam ne lu mu la wax mi ngi lay indil aaya ba ñu nangu ne li muy wax am na xam-xam te gisagun ku koy weddi kon nee na yooyu ku ci ñëw fukki fan ak benn di 11 jours lal la appal loolu tàggoog yow insha allah. kon daal rab cet liggéey. rab ak cet ak njëbër. ci nekk kum daal boo ñëwee fukki fan ak benn si kàttanu léegi yow ku demoon ku liggéeyoon ci sëriñ yu ñàng ya nekk ci dëkk yu ñàng ya nga xam ñooñu gëmuñu sax yàlla. ba ba liggéey bi jàpp yow nga dindi ko day yomb ci yow liggéey buñ ko waxee toujours mooy njaber njaber mooy comme par exemple maa dama sa tur ma jël sa Cheikh Taalif jël sa tur yaay loo xam ne dama koo jël lu takk sa ñaq mm-hmm. imma yére lay doon wa imma daal la wa imma lenn loo xam ne jëfandikoo woon nga ko moo tax yu bëri bëri nit ñi war nañ si def attention bu baax a baax kon nit ki yéreem la ci def attention waaw yére man lépp la ciy liggéey sa karaw ma la ciy liggéey sa wee bi nga ko yonent bi ci karawam lañ ko liggéey ak benn yére boo xam ne soloon na ko mayoon ko benn saabi yi bu ñuy wax Xaalid ibn Walid ci lañ ko jàpp rek naa léegi boos yu bari nangootul ngéntee seen kër yi clinique rek même bu soxna si bu ko dara dalul dinañ dem clinique ndax bool yee ni lekke mën nañ leen fëtti ci bisu xew yi dégg naa léegi ci la liggéeykat yi teelu nit ñi waaw liggéey moom mën mën nañu kaa def nit su lu bare bare bare su ko defee bu ñu jëlee soo suyaak ñaataat nga am fexe ba jox ko ki nga xam ne moo lay njabeer moom bu defee li muy liggéey yow même boo nekkoon fii ba Amérique laa la waxante ni jinne bi la fay fekk. comme day mel ne message muy ñëw ko commencé di lay yàqal da lay jàpp dof yëpp. léegi lenn mën na nekk comme ñuy ñuy liggéey kenn. comme ñuy liggéey ku tudd Cheikh Diop. ah Cheikh Diop boobu ñu koy liggéey comme ñaar far liggéey ba jaar demaat ci beneen Cheikh Diop mën na nekk. maam kii taxu ko woon a jóg mais ñoom ñaar dañu bokk tur rek. <coughs> de loolu mënul nekk li ma nekk daal mooy. Ah. ki nga xam ne da nga koy liggéey xamoo dem nga ba xamoo turam fexeel ba am leen lu bokk ci moom dem nga ba xamul turam mais su fekkente ne loolu yëpp amul xamul sa tur amul lenn lu bokk ci yow loolu du mën a nekk faw mu am benn loo xam ne ci lay sukkandikoo pour jam bi jëm si yow mii. surnom mën nañ cee liggéey nit. ki tur tur tur bi ko woowee du turam dëggantaan quoi. tur rek da nga si boole tur yaayam boo amee tur yaayam rek mu jàpp. tur boo bu fekkente ne comme par bu fekkee Cheikh nga tudd. ñu tuddee la njaga nga nangu ko uyo may la njaga nga gëstoo woo uyu xam nga uyoo nga ko nañ nañ am sa tur yaay boole ko ci nga loolu rek boo ko defee mën nga see jàpp nit eh, loolu nag moom la ñuy wax njeber su ko defee loolu moom fukki fan ak benn lañ koy fukki benn nga ko liggéey léegi ñu ñëw ci ab sàcc nag ab sàcc question bi moom toujours dama ci solal ñi ma koy demandé moo bari sàcc yi sëriñ Sénégal yi moom pour muy leer dégg naa mën nan aar ba duñ sàcc mais sàcc ba pare di wër sàcc bi moo leen të loolu moom ma xool ba xam fooj taxaw dama ne sëriñ si sàcc nga bëgg xam kuñ sàcc maanaam léeg-léeg aar ba duñ fi sàcc dafa mel na xaw nañ ci aay mais ñu sàcc bi sàcc ba pare pour jàpp sàcc bi ak lim sàcc moo leen të. Hmm, maanaam sàcc bi delloo si lim sàcc daal. waaw jàpp sàcc bi ak lim sàcc waaw mën na li waral muy të. waaw léegi-léegi xam nga bi téléphone baa ngi jar 250000 mu am soxla 50000 génn jaay ko. kam ko jaay ko xamante wuñ kooku nga dem tukki ji xam nga pour nga jotaat si day nekk lu jafe. mais nan jàpp sàcc toujours li muy def mooy lu ko tàggaleeg la mu jël moom mu am ca lam ci ut xam na ne lii par exemple kaani bi boo ko sàccee mënu laa fay aaju boo demee borom buti bi ne ko jox mu ne la mën naa toujours lu la tàqale moom rek lay wër hmm. loolu mooy waral mu indiwaat ko day nekk lu jafe même bu fekkee dem na ba bañ liggéey ko ba liggéey ba jàpp mu dem ñu ne ko da nga sàccoon àllu nangam kooku moo la liggéey moo tax li dal la sax pour mu indiwaat loolu du mën a nekk mais yow jàppal sàcc am na ñooñu moom ak lu mën a xew nan jàpp sàcc bi rek. loolu dañ koy liggéey. loo xam ne bu ñu ko liggéey incha allah taala fañ la sàccee muy ay million wala muy lu manti garan wala yére wala bagage boo ko fa tegee si kàttanu yàlla danañ si jot. wala ka ko sàcc moom da ko xam bu fekkente ne sànku na lañ sàcc. Mm-hmm. mais bu nag mënatoo ci dara yàggaay gi lu muy diiree bu paasee daal moom xam naa ne téeméeri fan ak fukk ak benn. pare naa ci waaw waaw loolu moom mën nañ ko mën nañ sa mën nañ la kaa aaral yow nit ki ba nga xam ne duñ la sàcc sa bërëb mën nañ la aaral itam loo xam ne ci sa jëmm lañ koy liggéey mu nekk sa yow yow am na ku jógee France ak Italie mhm. nga xam ne que tukki waaw li nga xam ne moom lañ ñaanal ci ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw fii amoon jafe-jafe tukki maanaam dañ am na si ñoo xam ne dañ doon jàng waaw ñooñu ko dafa ñëwoon fii moom fii la dëkk sax si Dakar benn quartier bu nekk fële ci côté aéroport ba ñëw fii bëgg tukki yàgg naa dem pour ut visa mu dem ci France bi mu ñëwee yàlla boole ñu moom loo xam ne moom lañu jëflante ni moom ko ko wax ko ne ko lii boo demee ci fan hmm. boo ko defee insha allahu taala boo demee kenn la ñuy téye waaye du yow ba mu demee insha na dellusiwaat dem na hmm. lam fa hmm. wuti masha allah yàlla yombal na ko jënd si waaw wàllum këyit moom liggéey jëflante nañ seeg nit ñoo xam ne duñ sax ay sénégalais nga wax noonu nekk Canada kooku du sax sénégalais ci Afrique yi jege Sénégal ci la dëkkoon waaye kenn koo xam ne sénégalais la ku ñu jëflante woon moo ñu ko xam ne dafa lu demee ni Canada ak Amérique yooyu dañoo bokk ci ñoo gën na am ne moom la doon lijjanti foofa léegi ku jóge ci benn place nag dem ba ci biir mu xam place ba mu baax na mu bëgg fa delluwaat maanaam koo xam ne dañ ko dàq wala moom moo dàq wala mu démissionné a waaw koo xam ne da nga doon liggéey si place ba mu yàgg ñi dàq la fa wala eh, ñi ba mënatoo demati nga bëgg faa delluwaat boo ñëwee dàq la ñi dindi loola delluwaat la fa parce que léeg-léeg danañ liggéey dëddali la ak place ba boobaa da nga fay jóge a ku léegi yow da nga yor ndombo yor jaaro waaw toujours dana faral di wax maanaam dana sax leen loo xam danaa ko leeral su ko wàllu jaaro jaaro dafa yàgg lool yonentu yàlla Suleymaan amoon na jaaro yonentu yàlla Muhammad am na jaaro ba nga xam ne mos naa dégg kenn wax ne ko yàlla joxoon moo tax xam-xam hmm. ba ko dégloo benn bu moom dina leer dinañ xam koy wax dëgg lu tax mooy man damaa ne alquran hmm. dama ko xam xam nga xam ne du lambantu hmm. xamuñ ko ndànk de dañ koo xam bu baax a baax a baax bu fekkoon ne lu ñu rawante la am ko war a toog ca kaw a kaw mën naa laa wax ne alquran moom toog naa ca kaw amul ci kenn koo xam ne ragal nañ la si ndax wax yàlla yàlla rek lañ ci jàmmaarloo yàlla képp lañ ciy xool ku dul yàlla faale na ci te yàlla moo ñu si may loola léegi jaaro daal jaaro yi bi nga xam ne mooy nekk ci loxo ndeyjoor boobu lu ñuy takk la waaw ñeeriñ bi doon lan boobu pour wàllu ubbeeku la ak wàllu bayre wàllu wërsëg ak wàllu koom-koom wàllu avancement maanaam koo xam ne da ngaa bëgg a tukki mu tëla wala nga tukki am jafe-jafe kayit bëri na ñoo xam ne gannaaw yàlla moom la leen jox yàlla yombale leen sa weer wa ñu am ay kayit bëri na ñu ko defar Italie bëri ñu ko defar Espagne am na ñu ko defar France bi nga xam ne mooy firéw ci côté wàllu càmmoñ bi boobu pour wàllu karange la boobu da lay protéger si wàllu rab wàllu cet wàllu liggéey ak wàllu pexe maanaam fépp foo nekk nit ñi di la pexel waxtu ne ñi lay pexel firee kaw ñoom ñoo lay firee suuf nga loolu rek a koy toj moo koy ah, waaw benn ah, beneen bi li képp ku ñu koy jox dañu la ko wax dina la ko wax mhm. ndomb gi moom nu mu euh, na mbir yoo xam ne maanaam moo ci lëmusu mhm. moom dana la protéger si bii àdduna waaye dana la protéger si pexe yoo xam ne jóge ko ci ay nit si ay mbindeef la jóge comme lu demee ni accident boo ko takkee yàlla dana la ci musal mhm. buñ ko liggéey paré amna ay gaw yo xam dañuy tamit ñu muy ak duñ ko expliquer waaye dañ si am yeen yo xam ne lay wax yi ir nangam ko war tak yi ir nangam nga koy tak bo ngay tak dugg ci auto di auto ba accident incha da nga mucc da nga ko dana la ar dana ara kep képp koo da nga and ak dana la aar jublu ba seerul dara lo xamné lu cher la amul ci aduna kana kay kenn ku nekk lu mu jar ak lu mu la jarul léegi be beeg ndoom koo takkoon ñaata fan nga ko appal mu commencé gis résultat ba commencé nan Cheikh waaw ma ngi gis résultat di wax deug yalla lima jël ci baara top jaaro mbiru jinn la joni joni kay bo ñu kay wax tax Gitu. ah kon takk tey commencé gis. boo koy takk gis résultat. ah résultat bi moom noo koy santi da nga jékki-jékki gis yokk rek. li taxoon li tax ñu wax liñ la ci wax bañ la koy jox li taxoon ñu jox la ko. Ah. loola si ngay gis yokk du fekkente ne tukki moo taxoon ñu jox la ko boo demee dañ lay may da ngay dem tukki bu fekkente ne pour kii la boo demee da nga koy am incha allah. kon jaaro bi jaaro bàyyi aada topp ni mu wax. laaj naa ko jaaru jinne la jaaru ah. bari foqee la. loolu ah, moom ñëpp xam nañ ko hmm. te lu leer la lu wóor la te nee nag laaj naa ko seer na pour mu bañ a bett kenn nee lu baax du yomb ba arrêté waxtu weenu dab looy tàggoo bu dul tàggatoo ak ku ñaw lu rafet lii kii ku ñuy wax Moustapha Niass moom it foofu la nekk benn bërëb ci HLM moo ñëw bi ñëw ñu koy ñaanal yàlla doole ci liggéeyam may ko kàttan ñu yàlla baax a baax di julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi di ñaanal yàlla mu defaat teranga rek ak xéewal ak ngënee rek jëmee ko si mboolem mi def yi jàmm fu ñu mantikaa nekk yàlla sàmmal leen boppam wattu leen boppam ñu ngi gërëm di ñaanal suñu sëriñ Cheikh Mahamadul Aqib nga xam ne doomu Cheikh Ibrahima Niass la ak xalifa Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass di ñaan yàlla may leen fanu gudd may leen wér te yàlla feeñal barke ak ngëneel ci seen njaboot seen gannaaw fu ñu mantikaa nekk yàlla kàttanal leen nga xam ne mooy suñu wéeruwaay fii incha allahu taala ci àdduna lépp lu ñu def rek ci gannaawam lañ koy defee insha allahu taala dañ koy ñaanal yàlla bu baax yàlla may ko fan yàlla may ko wér yéen tamit yàlla na yàlla dooleel leen kàtt na leen yëkkati leen ba ngeen kawee képp keneen ku dul yéen te ne seen nga xam ne rek yaa ngi bàyyi xel télé bi ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla may la nga déglu la nekk lu nekk njëriñ la nga déglu nekk njëriñ te nga jëriñoo ko njëriñ lu nga xam ne day sax ba faw insha allah jërëjëf euh, numéro bay arrêtom ngay xaar joxaat la ko ngi ci njeexital bi Euh, mais maa ngi jaajëfal tamit Serigne Jili Fata Falilu di doomu sëñ ab Abdou Fata bu sëñ Fallu di ko siyaar di jaajëfal sëñ Fallu docteur nekk ci yëmbal ak Pam Ndiaye xaritam ak lépp di jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon mais balaa boobu ma jox leen numéro bi Baye Ada top borom jinne yi Skype bi Baye Ada 99. lépp collé. man ma leer laa si la kon tàmbali bi leeraloon nañ ci. waaw dañ ko pirate bu njëkk ba daan ko pirate bi nga xam ne mooy bu njëkk bi mooy bàyyi 77 71 bi. boobu amatul boobu jëfandikootuñ ko képp ku si am suñu contact. waaw bàyyi ko xel baax a baax nga jël bii te arrêté boobu. waaw bii moo baax léegi mooy bàyyi aada 99 mooy dox léegi. lépp collé bindal numéro am 77 233 94 44 77 233 94 44 wala nga def beneen bi 77 074 40 87 77 074. 40 87 bàyyi aada topp borom jinne yi nekk ci Suprême ci wetu agence Tigo bi nga romb kër Abdou Guèye Seck dox lu tolloog 200 mètres nga fekk ko fi dis ko sa soxla lu mu ci mën mu def ko leneen li ñu bàyyi yàlla mi nga xam tëlewul dara te mën na lépp ci benn caméra bi Pape Sarr borom yëmbal séeréer bi moo ci nekkoon ci beneen caméra bi Amadou Kébé borom asalem cité bisaab bu antam moo ci nekkoon ak réalisation bi El n indi ñu ci yoonu ak dal ak jàmm ak salaam ci montage bi madame Fall borom Yoff ci régime bi Alassane ak Pape Ciss tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraange dakk bàyyi aada topp ngeen fekk si ko fi ngeen dis ko seen soxla lu mu ci man mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam te tëlewul dara te man a lépp